bude da nga bëgg sa réew bude patriote bi ngay woowee ne moom ngeen wootee seen bopp dëgg la am na yoo xam ne sax waru ko woote ci réew ba luy am di am mais nag état moo jëlul ay responsabilité mënoo fi taxaw eh, y a combien ya de y a combien ya de militants actuellement ñu nekk en prison ñu ci bari appel à l'insurrection la ñu leen tuddee la ñu leen di jàppee la ñu leen jàppee seen bokk na seen chef d'accusation te mbili gi taw à chaque fois ngay woote appel à l'insurrection taxaw bay saaga président di ma ray wala ma ray la gat sa gat sa jeunes yi génn ñëw région de Dakar Macky Sall li ñu ci palais ba lolu lepp nga bayiko je pense que nak bo bëggee fac mbir da ngay aller jusqu'à où se trouve la racine du mal fa nga garaan ko dëjët lépp topp ci tay jii

Euh, lu ñuy lu ñuy la donc je pense que loi boobu dafa war a war a nekk au-dessus de tout le monde appel euh, ces différents appels tey moo def ba jur euh, mars 2021 mille vingt juin 2023 voilà te nag bu ñu nee deug ay ay ay ay ci kanam de nga gis ne lii waxoon naa la ko te war nañu jël seen responsable bu yagg l'État doit rester debout lolu moy deug moy yoon ñu ci yàqal seen dal des milliards des centaines de milliards. état mënul dëkk di fay tout le temps ci ci ñu yàqule am na si ñoo xam ne c'est des petits commerçants yoo xam ne ñow dañoo euh, doon def prêt seen prêt sax euh, daanaka dañoo dañoo ko wax investir rek ñu ñëw yàq yëpp ana ana ana ana tëjit lan moo si lan moo si yàq daji butigu Maam Ndiaye Savon donc ay règlement de compte lépp mu woon ci biir parce que nit ñi malfaiteurs yi c'est juste des gens yoo xam dañoo toog di xaar occasion bu am ñu ñu ñu dugg si mais nañ def marche pacifique am na loolu naqari nañ dem marche pacifique ñu bañ a yàq Sénégal ñun pays pauvre lañ am loo xamante dafa ñaaw nga xëy télé Sénégal télé monde bi foo dem ci monde bi ñu lay wan image Sénégal da ngay sax war ne yow yow sénégalais nga c'est que bu nekke nekkee Sénégal bu ñu ko mën a xam mais boo nekk extérieur fii nga xëy sa collègue yi ngay ku nekk di la laaj lu xew Sénégal lu xew Sénégal loo leen di wax parfois am na ñoo xam expliquer sax nga nga wala benn vidéo déclaration Sonko nga nga ko koy traduire mais mu ne la mais waa ji lii la wax yëpp te te kenn jàpp ko am na yoo xamante ne sax ñoo ko wax munoo taxaw défier justice bi les juges tu les de lâche dara fekku la ci man je le dis ah. waaw xam nga sama loxo man je suis pas Macky Sall je suis pas euh, Khalifa Sall ni Ousmane Sonko man fu ma dëgg fekk dama koy wax. te bu ñu ñëwee ba ci wàllum euh, Macky Sall troisième di nga xam ni carrément man fu ma nekkoon ci 2011 lu ma doon xeex 2011 ba tey ci laa nekk donc man sama yoon ci Macky Sall sama yoon ci Sonko damay wax damay wax te yàlla tax ku ko gëm nga jàppee noonu ku xam aussi nga jàppee ko noonu li nga xam te moom mooy dëgg li mooy dëgg Sonko on lui a laissé trop trop trop faire voilà fii nii ah, dafa comme émission bi mu ngi waaj a jeex

ñu rey jigéen reyin bu ñaaw jigéen ñëpp taxaw te pourtant boobu Ousmane mu ngi woon assemblée nationale bokk ci ñi ko hmm. voté ñu criminaliser viol ay moromam ku mel ni ma koy wax turam mu may jéggal muy Sitor Ndour ànd ak ngoram dem hmm. tëdd neuf mois ñu hmm. acquitté ko eh, au bénéfice du doute égal lu ci mënti ka nekk mais ànd naa ngoram dem tëdd neuf mois xaar ñeneen ak ñeneen sëñ Baara Dolli ñu accusé ko dossier dossier Sitor Ndour tey jii nu ma taxawee si dossier Ousmane Sonko mooy noonu laa si taxawoon dossier Sitor Ndour mën wax ni tey jii bañ demee ba affaire bi médiatiser mu ñu siiw si ñi xam ci ci bari gën a yàlla ma tax. ndax tey yaayu xale boobu façon journaliste bu nekk woo na ko mënu kaa bu ko expliquer problème bi bu ñu demee woowu kële bu ñu paree gars yi teg seen man ba mu wooyee ci laa jël sama responsabilité taxaw dénoncé ko montrer des preuves et ba ñu xëyee tey si la ko si la ko yoon woo convoqué ko teg ko teg ko loxo. booy pacifique ci bari wallahi bari. ba ci ba ci waajur yi di laay xaw ma keroog kaay foofu xaw ma kaay foofu mi ngi may dégg. mu woo ma mu ne man la kaay foofu ma ne ko yow kaay foofu ban loolu la yow Sénégalais nga mu ne waaw man maay live. no, no, no, ne ma non ñu ngi rafetlu sa liggéey. wax wax ne ma non affaire il faut ñu jëm ci wax ma ne ko non su ma ciy wax man maay man maay xool te xëy ci waxaat. parce que dama ne je revenir donc man may ngi sama temps kañ ci waxat donc boy parce que du bari tek ma choc du ma la félicité parce que man deug la xam tor bu Macky Sall bokk mo na taxaw dama koy far lu sax man mo tax ne man fa mom du Macky Sall du sonku du kenen fu ma dëgg fekk ma xam li lii leer na ci man dama koy wax ku nek la jël ses responsabilités légui nak légui nak fofu la ñuy ñëwé Seydina di la wax hmm. Ousmane hmm. xam nga dama nekkon ci Cheikh Bara tej nañ ko fi ndax lu mu wax Ousmane wax lu ko gën a garaaw di dox sax. léegi ñu ñëw fii nii eh, yegg si lii nga xamante ne moo ko jotale ak Mame Mbaye Niang kenn wax loo moom moo toog hmm. ne lépp li am ci biir téléphone am ça veut que sax loolu sax débat actuellement parce que waxoon na wal hmm. fajiri ne biir téléphone bi li ci nekk rëy na bëri na dañ naan sax booy bi fan lay jëlee te jàpp nañ ay téléphone am eh, amaguñ ci hmm. lu ñu leer carrément am na ñu ci jot a xam ñooñu hmm. yaakaar naa ne toogatuñu nelawuñu léegi sëriñ buñ gis ñu ngi koy wër di ko lijjanti bés buñ ci xamee dara dañ koy teg ci mbedd bi rek parce que képp ku bëgg a yàq hmm. Sénégal ñu yàq la waaw hmm. parce que ñàkk ngoon ñàkk patriotisme ñàkk civisme weesuwul ngay ñëw di jël Sénégal di cotiser ka nga xamante ne yàq Sénégal rek moo ko ñor ngay jël sa alal di ko jox donte dërëm la duñ la ko baal duñ la ko baal fii duñ la ko baal suba te président Macky Sall bu la ko naree baal sax ñu bañ Donc, qui hmm. eh, eh, dit Adisa, et, eh, nous qui dit Adissa, et, et nom tout de Mambaïna, Fennan Lenko Fenn Boudjar 200 millions. Fenn Boudjar 200 millions, Naronaya Famille. Moutopoji, 6 mois avec sursis d'Alouadi. Nous hmm. paraît Adissa Arjo, a t'écoutons 2 ans ferme. Le premier, le résultat, le qui begin on, procès, c'est le verdict begin on. Kaydi, moi, hmm. le 14. normalement suba suba normalement mooy quinzième jour bi nga xam ne suñ njàng mo gàtt ak suñ gëstu moom mooy eh, jugement par contumace fa la yem waroon na yóbbu boppam yóbbu ko xëy na tey ci guddi mais bu ko deful ba suba normalement war nañ koo jàpp léegi nag fii nag laa lay laaj l'avenir de Sonko avenir politique am ak ñaari procès yi topp ko ak yeneen procès yi nga xam ñu ngi ñëw muy les nappel muy ñeneen ak ñeneen ak rcc hmm. voilà am nga ma yalla fa def comme dossier aji sar bi jitu bu Mame Mbaye ñaabi dossier aji sar muy dogal xew ba muy doog am je pense que le jour bobu Sonko sax jëlugul jëlugul parole muy euh, dimanche dimanche 6 6 euh, euh, février 2021 juróom émission bi ngi Seneweb parce que lépp lu may wax dafay am dafay am seede Seneweb ñoom ñoo ñëw sama kër keroog jël ma émission ma wax ci lu ma ci xam yëpp euh, te lu ma ci wax lu ci bari Sonko moom ñooy da ko confirmer foofu ngay xamee ni euh, sénégalais yi wala journalistes yi ñu dafa dafa bëri ay naafeq parce que nit buy wax bu doon tubaab bi booy wax da ngay fexe dem xool la vérité jëm ko rapprocher ak li nga xam moom nga wax Sénégal gisoo fenn foo xamante dañ la salon de euh, séance de massage deux cent mille francs la kooku tey la presse war nañ ci benn débat boo xamante ne tey jii wéral wane weddi génne dëgg indi fen euh, gén indi dindi fen indi dëkk Sénégal gisoo fenn foo xamante ne aussi da nga ne da nga yow nga gis lu mel ni Sweet Beauté nga ñëw ne da nga ko jaawale sen Sénégal euh, gisoo ni da nga dugg si benn salon bi laajte document ak ay agrément nga xol ne agrément bi kat gis nga fi massage thérapeutique dañ koy def dañuy def médecine ande Khady ñay bam mu wéddu na loolu lépp nee carrément mom deful massage thérapeutique salon de beauté la suite beauté la benen bi moy nga ni boobu nga fa njëkk a ñëw da nga dugg ñëw laajte document ak agrément yépp nga après nga visiter mu nuru la fi dal sa xel nga kenn wo sa oustaz ne ko ndax mën fi di faju oustaz ne waaw ba tey kenn xamu ban la te ñaareel bi ndey xat dégg naa ko ci làmmiñu boppam mu ne Sonko ba muy njëkk a ñëw ci salon bi bis bésu tabaski la fi ñëwoon indaale frotté bu cher ñëw man mii sama man maa ko sama loxo yaa ngi takk deret sax ba ma raxasu dem maase ko mu dem maa ngi naan sama dégg ko ma maase waxuma dara waaye xam naa ni Sonko la mu bari ay incohérences yoo xamante ne ñu ngi koy wax ci bari ci dossier te kenn mënul taxaw benn organe média mënul taxaw def def le les les rapprochements yi ñuy wax après yu bari da ngay wax di wékk sa bopp. donc nit ba kilifa boo waxee muy dañ waxaat muy dañ waxaat muy dañ rek nañ topp jàpp li ci ginnaaw yëpp tamit noonu la man fu ma condamné Sonko mooy euh, bula la yàlla may yenn yenn daraja yi am na yenn endroit yoo xamante ne waroo fa teg sa tànk am na ñoo xamante ne waroo wax ak ñoom. amna fo xamanteni waro fa di lekke ablay wa demoon na paniko même boy tukki sa bo mënee and ak soxna and ak soxna bo do ko don joko don tax cax nak duggu ci bërëb yu mel nonu def fa li fay def parce que euh, tribunal nenañ dakk dàq nañ viol bi waye rapport bi ça existe donc mënoo dem dab sa banex ba pare nak bëgg plus de 35 sénégalais dé ci man c'est ça qui me fait mal té lo xamanteni ne na naa ca gendarmerie ba mënu na ko sax bañ yegg yow ne ba yegg mën na yem ci biir gendarmerie ba ñu lijjanti ko ndax ñaari mak lañ wax na ko fi ñaari mak lañ Aji Sarr elle était majeur Sonko il est il est majeur donc mënoon nañ ko li jëddi fofu xamni y a pas eu le viol mu indi des preuves benen bi ñu dem ba tribunal malheureusement nak Euh, dafa ko seq ay màggatu politique yoo xamante ñoo ko jiitu ci àll wàllu politique ndaxte ku la jiitu si néegu lëndëm moo la mën a wax fooy teg sa tànk dañ koy nax Sonko te xamul loolu gars yi dañ naan ko di ko di ko di ko mal conseillé bul wuy ji defal li defal lépp loo xam ne da koy def pour pour sori la ak sa candidature wala dara ñu ngi koy def bu ñu paree moo war a mën a récupérer électorat bi moo tax nekk ni boo xoolee deux mille vingt trois bii ñëpp dañoo ñëw dar ay bougan taxaw di défendre Sonko bekkee ongle ñeneen ak ñeneen parce que euh, bëgg nañ tay ji jëma a labat ces militants ba ëllëg si kii xam nañ ñu mënatul bok légui nag ñu né xamni kon ki dañ ko xeexal te ki mokki ñoo bok posture xaar ko ñu né votel ni bougan mo fi seuss wala di ci fa mo fi seuss wala keneen ak keneen wala Moussa Diop donc fofu le Sénégal tollu alors que dañ ka digal né ko bul def man gëm na ni gëm na ni sama taala la te gëm na ni bu Sonko demoon ak ses avocats je vois Maître Moussa Maître sur le Aïssa que ay Aïssa dina claqué comme décidé pour disqualifier di viol menace de mort bi leneen li ko Vous dit mais on lui a mal conseillé de ne pas se présenter devant le juge donc vous le problème oh. gars nañ ko alaman nañ ko tay yoon mom bu la da ngay mëno fexé ba bokku ci élection à nga dem poursuite de nga dem joxe sa sa bopp demande appel ñu ñu ñu at ñu wat ko nga ñëw ak tes arguments comme comme disqualifier na yi donc Sonko lu ko yakal mo yakal Nous, ñu ko ils l'ont mal conseillé c'était pas une bonne idée de ne pas se présenter devant le juge. ok déjà ak euh, Diallo rek ko deful la traité de lâche. ñëw dugg ci bureau bu ko laaj bi nako ko doom mako laaj donc yu bari nga xamante vraiment des erreurs yo xamante mi ngi koy def ëllëg ci biir bés bu ko yalla may nguur mom moy président bu bu nar a sonn ci Sénégal parce que lepp lu mu def dinañ ko ko fay te du ci mën dara dañ na yaa fi defon ablay wad dalon nako ba ñaan policier bu len door door leen wala ngeen jël chef de vélo ngeen bu len ngeen ngeen ngeen ngeen door leen ko Macky Sall fi taxaw ne dañuy dem délogé ablay wad ci palais bu nangul def li ak li tey lu bari loolu nañu koy fay ba ba ba wis ko Sonko nag bu ñuy dañ fay fay fay ba wis ko même sénégalais fi nekk bu bu dee bu dee ñëw parce que déjà fu mu nekk nii moom mbiram tax na suuf. voilà kon fi mu ne eh, hmm. ah, Sonko mbiram tax na suuf parce que déjà disqualifié nañ ko ci procès Mame Mbaye Niang bi que def na appel bii ñëw hmm. nag gën koo ci biir. ah d'après Seydina viol amul waaye nag Sweet Beauté du place bu ñuy fajoo te nag yaakaar